la réponse revient au conseil constitutionnel mais euh, et la morale également. waaw ah, très bien euh, Serigne Saliou. Euh, beneen bi ñuy bi ñuy bi ñuy dugg ah, ah. peut-être mën nga fa porox ndoll en même mais il faut le 12 septembre kan moom peut-être lañu la ñu mën a xalaat que mu jiite assemblée nationale. président ou présidente de l'Assemblée nationale. je vais faire un peu de la météo politique mais pour leeral tuuti <laughs> rek wax na ko. li mu wax ànd naa ci. waaye mais juridiquement man may ma rek. li nga wax man ànduma ci. man li nga wax àndoo ci. man li nga wax nawal li nga wax man ànd naa ci. ànd naa li nga wax. ah merci bu su boobaa conseil constitutionnel war a déposer seen dossier très bien. mais am na ñoo xam ne nag waruñoo déposé ñooñu duñ déposé waaw a déposé très que man li may wax mooy ñii ñiy bëgg asseoir la thèse que wooyu na déposé rek même su fekkee ne déposé na aussi conseil non problème du foofu aujourd'hui et je reviens encore sur le dama ne par exemple aujourd'hui en France en France le mandat est de le, le mandat est de deux Macron va, Macron va finir mm-hmm. c'est comme si suba ñu ne Macron jaaxal na mais mais day dem day dem day dem mais dina déposé wax ñu xoolaat c'est-à-dire c'est-à-dire gis nga ne aussi newul Sénégal politique gis nga. mais am na candidat yoo xam ne Pouy am na candidat yoo xam ne c'est pour salir la réputation du gouvernement c'est pour salir aussi notre démocratie am na ci yoo xam ne il ne doit pas quand même déposer leur euh, candidature il faut accepter Fatou Abdou si si parce que foofu la taxaw mais mais mais Pouy dama la wax Pouy Pouy n'oublie pas que Pouy n'oublie pas que cette constitution là Pouy n'oublie pas que cette constitution c'est la constitution de la France entièrement d'accord. oui n'oublie pas que le code pénal sénégalais. je sais c'est le code pénal de la France yaa ngi dégg donc donc tey donc tey moo tax ñun lépp lu ñuy wax. dañuy jël sur la jurisprudence française mënul mënul mënul ñàkk yaa ngi dégg même suñu texte de droit c'est inspiré du droit français donc moo tax tey ñu li ñuy wax mënuñu ñàkk inspiré wu sur la jurisprudence française biir na leen biir na leen France nga jël exemple tey bu doon France lañ nekk

wala ñu nekk ay homme de. kon kon kon bu ñu leen tuddee. puy ci mërs dootuñu waxati. puy kon xamoo kon kon puy kon xamoo nag le le code français kon demal nga demal nga demal nga lire ko. <laughs> demal nga lire le code électoral français mais mais sëñ Saliou sëñ nga lire ko léegi nag ma ñëw ci perchoir bi waaw. waaw pour pour man dama gis dama gis da nga da nga far ci côté boobu dama far fan da far ci côté boobu parce que le fait nanguwuloo taxaw ci ne am na candidature yoo xam ne si ne ni ñu taxaw sont pas légitimes non bay non bay légitimité xool la légalité xam nga xam nga xam xool Fatou Abdou Fatou Abdou ñaar moo am Kader ma leeralal la gis nga le conseil constitutionnel moom xamul lu muy xool la légalité pas la légitimité légalité lay xool mais on n'est pas dans le domaine de la légitimité te yow li ngay tuddee légitimité loolu légitimité conseil constitutionnel li muy teg mooy la légalité cest à la loi moom day xool ne loi bi kii war naa dem ki warul dem mu brandir ne loi bi lii moo invalider sa candidature lii moo valider sa candidature donc on dans le domaine la légalité yow tu parles toujours de légitimité légitimité légitimité dafa am ci leneen lu mu tënku ci yow ci li ngay wax quand tu parles de propriété et cetera tout man je suis d'accord sur une chose su fekkente ne aujourd'hui Sonko doit aller en procès lu mu fa jëlee su boobaa la décision après qui s'impose nit ñi dinañ ko tey mënoo taxaw koo xam ne nii on l'a pas encore jugé defaguñ ko dara nga bëgg a taxaw daal ne candidature am daal di ko rek kan aujourd'hui cest à a toute une population derrière pour soutenir une candidature loolu la wax la légitimité te mënoo taxaw nga ne tey Sonko amul légitimité mënoo taxaw tey nga ne Khalifa Sall amul légitimité Khalifa Sall la légitimité mais il n'a pas aujourd'hui la légalité Karim Wade il a la légitimité il n'a pas encore aujourd'hui la légalité légalité boobu moo leen tënk donc problème bi du problème légitimité. mais sëñ la. est-ce que le moral est-ce que hmm? ce que la morale. waaw ce que la morale. est-ce que la morale permet à un accusé Mm-hmm. de viol de se présenter aux élections présidentielles. non xam nga tu a dit accusé. la morale. non non non non xam ma la morale. non xam nga non non accusé xam nga mais par exemple un accusé un accusé. oui non je lui ai posé question. oui ah, oui xam nga un accusé. laa la wax dama lay dama lay dama ne un accusé. xam nga accusé toujours dañ ne la tu la présomption d'innocence. je suis d'accord. xam nga li ma donc nag soo jàppee nga ne man je suis en tout cas innocent. de façon vraiment présomptueuse nga ne man je suis innocent su boobaa yow mënul tënk dara say activité jusqu'au moment où parce que boo taxawee nga ne man dañ ma accusé donc du ma présenté wu ça signifie dugal nga sa bopp da ngay taxaw ci li nga taxaw bu fekkee ne yow da nga wóolu sa bopp ne je suis présumé innocent léegi nag ña ko war a leeral la justice c'est à eux de faire ce travail. parce mais mais non non c'est à c'est à eux de faire ce travail. waaw waaw d'accord li nga ma wala mel ni yàgg ngaa dégg nit boo demee en Europe France bi jël exemple yàgg ngaa wala nga dem ci benn dëkk boo xam ne nit dana xëy na dama bëgg nangam ñu xëy ba taxal ko benn mbir boo xam ne ba muy nekk gone lañ ko ko taxal. mu ñëw ne maa bëgg ne président wala ministre gars yi génneel ko mbuut ba mu ne je me retire je laisse la justice faire son travail justice def liggéey moom ah, ah, leer non ma ñëw man ma ñëw man maa soulevé li bale ma l'élégance voudrait que bañ ko accuser viol mënoon naa ne je me retire de la scène politique publique ba li nga ne mënuñ ba ji li jënd ko ba mu leer ba set wicc ma soog a ñaata loolu. non non non mais mais mais mais mais mais mais foofu laa doon xaar foofu laa doon xaar Sonko Ousmane. en tant que gentleman en tant que quelqu'un boo xam ne si ne. mais mais mais candidat dafa bëri pourquoi pourquoi pourquoi moom candidat pour mais mais c'est ça qui pose problème c'est-à-dire c'est-à-dire pourquoi cibler simplement la candidature leer ba pare. ba mu leer ba pare ñu xam lan la Adji Sarr def ba tuumaal Ousmane. ak lan la def ko porté ko plainte ak lan moom moo xew seen diggante ndax ëllëg ëllëg si jamais ñu dem élection yi par magie Ousmane gagné. du de non pas par Maggi. par Maggi pas par non non par Maggi. Maggi de. waaw mais ba tey. par Maggi ba tey. ay mots yoo fi. yaa ngi fi. man bi dem voté Maggi amu fa. mais nag may bàyyi mais. yaa ngi dégg non kon kon waay waay waay. mais naa la xamal ne machine mënu fi. waaw d'accord naa. mais DSK DSK bi nga wax ci France. parce que man ah. DSK moral. moral moo ko écarté ci élection. non non DSK moral lay yor. parce que accusé wuñ ko de. accusé wuñ ko DSK dañ ko jugé. mais moral culpabilisé ko. mais moral moo ko écarté. xam la mais avant ñu koy ah, jugé moral moo ko écarté. non déedéet dama ne écarté par la morale. non xam nga DSK. parce que xam nga DSK. moral Descartes yaa ngi ne moral Descartes n'a jamais nié les faits. xam nga ma Descartes n'a jamais nié les faits c'est ce que les gens ne savent pas tu sais la juridiction américaine et la juridiction française ça ne pose pas ça ne bokkul tey gis nga le fait là bi bi xewoon unis si c'était passé en France Descartes ne s'est reproché en rien ci li nga xam moom moo xew mais parce que. États-Unis États-Unis États-Unis ils sont. non non Descartes kenn juge non benn baat rek. benn baat ma fàttali la ci non mais xaalis xaalis bu mu joxee xaalis bu mu joxee c'est pourquoi. benn baat xaalis bu mu joxee c'est pourquoi le nombre de millions d'euros qu'il a donné pour c'est pourquoi. question de conscience benn. Adji Sarr benn baat la DSK a reconnu les faits ba pare daal di jox génne xaalis caution joxe. waaw yow ñu ñu ñu ñu mu bàyyi ko moo ko écarté. déedéet léegi moom moo écarté boppam. léegi léegi léegi la vie c'est sa morale qu'elle a écarté. xaaral sa morale moo ko posé mu écarté.

c'est pas c'est pas pas pour le projet aussi waaw vraiment ah, mais Kader vraiment Kader on change c'est pour la candidature non non on n'est pas là pour le projet de Sonko Kader ce que tu fais là mais Kader aussi ce que tu fais là c'est dangereux c'est pas Kader Kader ce que tu fais là c'est dangereux ah pas le projet de Sonko pour Ousmane non non Kader Kader ce que tu fais là c'est dangereux pas pour le projet de Sonko Kader attends mënuñu ko négliger non non li xew loolu justice ak moo koy leeral gis nga affaire bi non damay daane waaw parce que dafa am lu mu wax si jamais qu'il devient président. non tu as dit si xam nga si moom si rek si non non si le terminer. si si boobu wax après bu la neexee si boobu nga jël nga jël sens inverse. alors il faut le la la. Ousmane a déclaré sa candidature que bëgg na bokk te day te dara du ko teree dem. waaw su fekkee ne si topp nañ ko. ragal ko justice reculée. lijjantiwuñ procès bi ah, ñu dem. Ah, li ma la wax ma ma ñëw. tu insultes la justice non non non il faut laisser terminer. il ah, insulte la justice. non mais mais laissez-le terminer. ñu dem ñu dem ñu dem par magie bi. wax delloo la ko. qu'il devient président de la République bàyyil par magie. Hmm. magie bàyyil par hmm. magie la vie de Adji Sarr li mu wax ni su nekkee président. Oh. il se peut. yow yow yow yow yow tu es dans les règles la candidature de Ousmane Sonko. il faut que ñu ci ko ba pare ci yoon doo ko dem wax ah, ak moom ci léeg-léeg je pense que tamit Kader nag est devenu vraiment le conseil constitutionnel quoi. non pas conseil constitutionnel. l'Assemblée nationale <laughs> ah. bon assemblée nationale moom euh, moi moi je crois que euh, waa Benno ñoom ils vont chercher euh, seen président bien seen présidente léegi nag li ñu jàpp mooy ki nga xam ne moom moo jiite woon. Euh, comment dirais-je ki nekkoon la tête de liste nationale la tête de liste de Benno ni ñi jàpp nañ ne légitimement que moom moom tey moo war a nekk ñoom seen candidat et c'est là où on parle de légitimité légitimement tey moo war a nekk seen candidat mais seen candidature dépendrul ci ñoom ci seen kilifa politique la dépendre muy Macky Sall c'est Macky Sall qui kan mooy nekk fii kan mooy nekk fii kan mooy nekk fii. Mm. et c'est là où encore ça pose problème sur la collision entre l'exécutif et le législatif. parce que affaire assemblée nationale yoonu exécutif newu ci si aujourd'hui jusqu'à présent et c'est là où li nit ñi doon craindre ba léegi naan député du président mais député du président ba léegi am na fi tey mm. député du président jógee gu fi parce que si c'est le président lui-même himself ki convoque les députés au palais de la République wax ak ñoom ñu sermoné leen ba pare daal di wax ku nekk fa nga xam ne foofu la lay teg ça signifie que le député du président jóge gu fi parce que ñoom après tout ils ont été élus hein, au suffrage universel au même titre que le président de la république même su fekkente ne président bi peut-être moom moo bénir seen euh, seen position ci ci ci liste bi mais le problème qui se pose moo di ñoom seen biir kii ñu fay teg président de la république moom moo koy décider. amuñu lenn loo xam ne léegi nag président bi aussi dafa nekk ci benn dilemme dilemme bi mu nekk moo di kan lay teg assemblée nationale est-ce que ça va générer des frustrations kan lay teg premier ministre est-ce que ça va générer des frustrations et ban lecture la nit ñi di am aussi politiquement sur ki nga xamante ne moom la ñuy teg à l'assemblée nationale dans sa position bien sûr par rapport à aux échéances qui venir ak aussi ki nga xam moom la ñuy teg premier ministre mm-hmm. parce que nit ñi dañuy xool ñaari station mooy station yi gën a kawe mm-hmm. assemblée nationale premier ministre te su boobaa lecture bi ci nit ñi mën a def moo de au cas où le président ne force pas un troisième mandat est-ce que la présidente de l'assemblée est-ce que président de l'assemblée est-ce que le premier ministre est-ce que la première ministre est-ce que éventuellement ñoom ñooy ñoom ñooy ñooy say dafa te nit ñi aussi lecture boobu lañ ci am moo tax ma ne enjeu yi li tax mu nar a metti mooy ministre yi nga xamante ne tey en tout cas homme politique yi nekk biir bennoo te am ay ambition politique que ñu ñoom dañu am aussi des ambitions présidentielles ci station bi nga xamante ne moom lañ leen di placer ci la ñuy xam réellement ndax ñoom ils sont en tout cas dans le favoritisme présidentiel ou bien ils ils ne sont pas. ils ne le sont pas su boobaa nag su boobaa nag di nga gis ne ñoo xam ne ni dinañ jël ñoom dinañ jël seen en tout cas seen courage à deux mains. et te loolu moom maa la ko wax fii déggul baax li mu la am na ñoo xamante nii qui ça dépendra de leur position aujourd'hui à l'Assemblée nationale ah. ou bien de leur position dans le gouvernement dans le futur gouvernement alors demaguñu fa Kader ah, mm-hmm. mais aujourd'hui euh, beaucoup de tractations parce que du côté du pouvoir dégg nañ ñenn ci ñoom ne ñi fare ci opposition yi ñi ngi fay péché maanaam di fa wër pour am ñoo xam ne ñoom la ñuy ànd ak ñoom bu ñu demee assemblée nationale installation du bureau mm-hmm. côté pouvoir ñoom it ñi ngi wax ne ñoom ku ñuy yaakaar woon wala ku ñu yaakaar mu bàyyi yeew yi ñëw waa opposition bi la waaye bi ñoom ñi nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ndax le vote est secret foofu noonu nan lañ ko mën a li ñu ci a wax daal mooy yuuxu dina jib fu ñu ko foogeewut maanaam fii fii le 12. Hmm. yooku dina jëf fu ñu ko foogee parce que li commencé annoncé nii ci déclaration candidature yi mi ngi annoncé lan moom moo nar a xew à l' assemblée. que ci côté opposition bi. dañu nar a soutenir Benno Bokk dañu nar a soutenir. Euh, Benno ki bon Benno mais ki président proposé pour que mu nekk le président de l' assemblée ah nationale. et aussi dina am yeneen candidat yoo xam. dinañ euh, euh, déclaré ci. dinañ déclaré si dinañ dé. Oh. parce que parce que peut-être ñi nga xool naan 83 ñoom ñooy voté pour. benn ah. pour loolu pour mais peut-être que dina am sax plus de 83 voix yoo xam dañuy voter pour. Euh, ah, proposition présidentielle non non Kader nag da nga nekk ci rek. mais la fay xew xamoo ko. mais c'est-à-dire tu es dans des nekk ah, mais mais son influence non accepte que accepte nekk nii. non mën na nekk ci ñaar yi. man foofu mbetteel am ci parce que président ak ñi mu àndal ñu ngi def seen i ay calcul pour jéem a xool le maximum ñaata voix lañ mën a ñaata nit lañ mën a xëcc ñu voté leen une fois que loolu am. moo tax comme c'est vote bi jàpp nga ne comme ni ñu koy waxee de part d'autre fu nekk mën a fam ñoom jàpp nga ne benn pàcc bi rek la mën a am muy opposant yi opposant ñoom ñooy dem dooleel ñoom ñooy dem dooleel le pouvoir le pouvoir mais loolu loolu a nekk loolu ah, xalaatu mën a nekk ci loo ko teg pour plusieurs raisons hmm. parce que yaa ngi wax léegi nomination poste premier ministre président assemblée bi ñuy préparé nii bii Macky du proposé koo xam ne mënul xeex foofu parce que ce qui est sûr moom mooy. non non non non le rôle du président de l' assemblée pas rôle président assemblée du est que Macky du proposé koo xam ne deful unanimité. du mës a ay frustration ñooñu bañ a du président buy xeex. foofu li tax du ma ci am njot lu ñaaw. Hmm. parce que bu ñuy bu ñuy euh, nommé euh, élu euh, président de l' assemblée ba pare képp koo xam ne Macky bëgg na la xëcc. daf lay proposer ci gouvernement bi di nga ci dugg mën na la mën na la PB nu ne quand même ñun suñu suñu réew mi yow tamit corruption bi nag fan la toll. ñaata nit ñooy jaay seen ngor ngir xaalis. Ah ñaata nit ñoom ñooy eh, eh, dem. et eh, et du tax les gens de l'opposition de de de

koo xamee si ne nii dina fa nekkal président de la république. non non waru fa nekkal le président déedéet. laa da nga juum parce que fi mu un président de l' assemblée n' est pas l' assemblée pour le président de la république. encore une fois de plus candidature. Ah. troisième candidature eh, Macky Sall coow li mi ngi fa parce que ay élection lañ jëm. non non lii nekk assemblée il n' est pas là pour le président mooy nekk ci biir gouvernement bi nomination premier ministre bii ñu jëm ki fay teg wallahi koo xamee si ne ni baatam du deñ la. baatam baatam du deñ. baatam du deñ ça veut dire quoi ça veut dire eh, quoi baatam du deñ ça veut dire alors Kader le président de la République. non non dama bëgg mu leer rek non dañu baatam dëñ ma ne ko baatam dëñ ça xam nga mooy kan. ku mën a xeex. du fa teg koo xam si dafay ñëw. pour organiser réew mi. c'est pour se la ne. kon kon kon kon kon kon kon Macky du eggale mandat bi xam nga jafe-jafe réew mi pour troisième candidature bi. ah kon buy am ci doole bu mënta am ci doole. Eh. moom bu demul ñu bari duñ kon kon yow yow de yow de de tu ferais un mauvais nekk ci dilemme peut-être benn bi muy ci. premier ministre beneen bi muy kan mooy jiite assemblée nationale te bu leen waxee xool leen fii ñoom ñëpp xool fii te du créer frustration yoo xam ne dinañu abandonné le kii Macky Sall tànn dem sax dooleel opposition bi. xam nga président Macky Sall ku ko xam. xam ne du ko ñuy jàngal politique waaye nag du ko ñuy ñàkk jox ay orientation politique parce que day waxtaan ak ay nit parce que nit la. premier ministre bi ñuy wax fii waxi poste premier ministre dañ toog fii Grande Gueule ma ne leen man de njort naa ne président Macky balaa muy tabb premier ministre daa teg assemblée nationale ba noppi. bu teg assemblée nationale ba euh, noppi loolu lay def. xam conséquences ya parce que bu ñuy installé bureau assemblée. du yomb loolu mooy su demee ba installé assemblée nationale soo a dugg na ci wàllu installation premier ministre kam fay fal ak kam fay teg moom moo koy xam nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Mhm. nous ne sommes pas dans l' esprit du président Macky supposition donc la ñuy joxe. Mhm. et je sais que en âme et conscience le président Macky Sall fi réew mi toll ak fi mu toll ak askanub Sénégal ak alerte yi nga jot na ko dal ci local yi dal ko ci législative yi. daloon ko mois de mars ak émeute ba mu wax jeunesse bi ak yeneen circonstances yi nga xam ne mu ngi dajalewu ci moom mu nekk des circonstances sociales atténuantes yoo xamante ne bokk nañ ci li gësam nguuram président Macky Sall du fi teg loo xam ne day jàkkaarloog askan bi di xeex pour pouvoir pour opposition bi wala askan bi déedéet. position bi muy nekk loolu du intérêt position sociale lay nekkee position de souplesse position de dajale njabootam dajale askanu Sénégal dajale opposition bi pouvoir bi xool fii ak 2024 comment on comment il va essayer de faire. loolu nga wax pour que Sénégal génn situation bi nga xam ne nekk na ko. voilà mu nekk une situation apaisée. d'autant plus que. yow moom Pouy non chef religieux ma ki war na laa déglu non chef religieux dañ ci am wàll parce que. Mhm. li nga xam ne moom lay installé. Ah assemblée dana ci waxtaan ak suñu chef religieux yi. waxtaan ci église parce que dafay toll benn moment boo xam ne couche sociale yi ne ci askan wi yëpp fii réew mi toll et que. li may lancé comme conseil mooy que muy pouvoir que muy opposition que muy Macky ka ku mu munti doon nañu fexe ba stabilité bi nga xam ne moom la Sénégal masa xam ba nekk ci jàmm ak salaam. ñu fexe créer conditions yi nga xam ne mooy adéquat ba Sénégal yi nekk ci jàmm parce que nag réew mi dañoo sonn ci fitna mm-hmm. moo jël Mimi Touré premier ministre def ko tête de liste nationale moom lay yóbbu assemblée mu nekk présidente assemblée. ah wala. Ah. non sama xalaat laa wax. wala keneen lay teg. loolu moom moo ko xam ak waa bennoo te bu si waxut yaakaar naa ne amul kenn koo xam ne dégg nga président Macky Sall bu a toog ci plateau télé wala ci rajo di ko wax suspense boobu moom moo ko moom même waa après waa bennoo ñu ngi ci suspense bu metti boo xam ne xamuñu kan la fay teg y a des positions ñu ngi wax naan Amadou Ba su waxee Amadou Ba waa benn waa APR ne non Amadou Ba premier ministre gën a jekk charisme foofu la féete bu ñu nee Mimi Touré ñu ne woy mérité na ko Aly Ngouille Ndiaye gars yi sax ñu ngi def benn suspicion ci suuf naan Aly Ngouille Ndiaye mën na nekk président assemblée parce que am na benn loxo boo xamante ne tey digganteem ak euh, askanu Sénégal ak maîtriser pas assemblée fexe ba jokkoo pouvoir bi ak opposition bi ci ay relation mun na fa am mais am na yeneen si position yu wax naa Aly Ngouille Ndiaye mun na sa nekk premier ministre donc ñaar yooyu muy président assemblée nationale muy premier ministre loolu rosalu président de la république moo ko jël dugg ci biir poche am ah, ma mu dem fa liggéey jawaay taxaw di la xar Macky Sall moo neexut a canaliser. neexut a lijjanti neexut a contrôler boo xoolee ba ci biir parti bëri na frustration boo xam ne ni may wax ak yow tey député yu bëri fi mu nekk nii tant que yegguñu assemblée nationale ba élection jàll bañ tab li ñuy tab président Macky Sall day modéré day masla day naxante am na ci député yoo xam ne xam nañu fii ba cinq ans la seen durée di di mat. pour exister dans la scène politique mën nañ dem assemblée ay ministre lañ ñii ay DG lañ mën nañ leen démissionné ci poste ministre wala poste ñu bañ non ñu démissionné démissionné assemblée ñu bañ parce que am nañ ne bu ñu démissionné assemblée bu ñu bañee démissionné nekk ay député cinq ans dañuy exister dans la scène politique gars yi dañuy da ngay stratégie ak ay calcul politique en 2024 aussi on peut dissoudre l'assemblée non waaw am lu am rek seen sécurisation mais ñoom ñi nga xalaat ne am président assemblée nationale jiite président assemblée nationale bi ñoom seen pexe ak seen xalaat ak seen xam-xam yëpp. ci ci loolu la ñu ngi waxtaan ci seen biir. di teg calcul di teg hmm. ay schéma ku ci nekk si ñoom yaa ngi wut carte ak crédibilité. mais ils ont ils ont ils ont le droit. moo damaa gis nag hmm. boobu ba léegi nag yow ba su paree ba su benn hmm. après ngay waxtaan. non non xam nga ma ko non xam nga ba léegi ba su ñëwee ma ko parce que non xam nga xam nga léegi wax ñu ba su waa wala xam nga ma ko xam nga ma ko non doucement rek xam nga ma ko parce qu'ils ont la majorité ils ont la majorité moo tax ma jàpp ne ñoom sëñ Saliou la majorité ils ont la majorité mais demee ba ci jour vote. waaw vote est secret. waaw mën na ne ils ne peuvent ne plus avoir la majorité. waaw léegi li politique. ci biir benn bokk yaakaar ak APR e ak seen euh, euh, président assemblée. demal ñu météo politique ci biir Yewwi ak Wallu. alors euh, demal ñu météo boobu ñu xool. très bien très bien man mën naa ñëwaat léegi. pour que ça soit équitable. mais aussi nañu wax nañu defal météo politique tuuti. waaw wax nañu ko pare alors on parle social. nañu si wax euh, boobu ba tey ñu ngi wax ci politique. Euh, ci la bokk dund bi la vie actuellement ci li nga xam ne moom moom la ñuy moom la ñuy jëfandikoo cher soble ba tey ñu ngi wax Touba mais même ici à Dakar kilo bi mu ngi jàll 1000 francs ci boutique yi boo demee xëy na ci marché yi 900 francs euh, kii peut-être pour dire stop kan moo war a wax ne dafa war a yam nag pour mbiri yam parce que le ministère du commerce depuis lors dégguñu ko à part le directeur du commerce intérieur sur la question. Arabie man de j'ai toujours soutenu ici que Sénégal lu mu gën a ñàkk mooy ministère du commerce. le ministère du commerce n'existe pas dans ce pays. Uh-huh. parce que dans bien des combats yoo xam ne nii dafa soxal askan bi. le ministre du commerce kenn gis ko ci kenn dégg ko ci d'ailleurs am na ci benn moment boo xam sax dafa Assome Diatta a baissé les bras pour dire carrément cest dire pour faire un aveu que mhm. moom lii mënuñ ci dara genre oui donc ça c'est kooku moom kook moom elle a avoué son impuissance ku mel noonu nag su fekkee dafa avoué son impuissance mooy waral lii di am di am que spéculation bi inflation bi di am que les gens augmentent comme ils veulent parce que chaque fois on nous brandit l'argument de la guerre je ne sais pas Ukraine bon ça c'est pas vrai il faut aussi qu'on avec ça ça il faut on qu'on arrête avec cette guerre cest dire que cette guerre là il y a eu combien de dans ce monde là et puis ça n'a pas empêché que les prix fi ñu nekk nekk fa soble fii lañ koy béy ci réew bi mhm. ça on n'importe pas c'est am na lu ñuy importe loo xam ne day jóge Hollande mais ñun fii on on on peut en avoir assez mooy bi muy jeex dafa tombé ak bële bi muy non ma ne xam nga lu waral problème bi tey. moi la chaleur am. moi j'ai écouté j'ai écouté un des responsables de ñiy nekk dans dans le dans le domaine ñiy jaay soble bi. qu'est-ce qu'il a mu ne ñoom seen problème principal mooy amuñu ay moyens de réfrigération cest à seen seeni produits. donc suñu produire en quantité suñ ko mënul stocké foo xam ne daf koy daf koy daf koy daf koy seddal mhm. dañuy am problème. pour que ñu pour ñu mën ko jaay parce que su boobaa li ñu produire yu ci bëri dafay nëb te loolu mooy dëgg ñoom nee nañ aujourd'hui il y des usines de réfrigération ici à Diamniadio mais nee na ñoom li ñu leen ciy laaj finalement bu fekkente ne nee na li ñuy benn kii rek li muy jël rek il paye huit cent cinquante mille la ñuy fay te nee na ça ne prend même pas le un tiers de ñoom li ñu soxla finalement non ñoom suñu fayee loolu en même temps bu ko génnee di ko jaayaat ay pertes lañ ciy jëlee te ils sont soutenus euh, euh, comment dirais-je yi ñoom ñoo leen di financer donc pour wax la rek mbir mi c'est-à-dire c'est état bi ci boppam surtout le ministre de commerce ñoom ñoo xamatul nu ñuy réguler le secteur du commerce et loolu moo indi dérive yi ngay gis yëpp sur l'inflation bi nga xam moom la ñu constaté sur les prix depuis un certain temps alors euh, Kader ci loolu est-ce que est-ce que les consommateurs aujourd'hui nekkuñu entre le marteau ak l'enclume même des commerçants yi nga xam ne ñoom ñooy yéegal prix yi ci yenn localités yi ci mel ne Touba même ici à Dakar puisque le kilogramme mi ngi jar 1000 francs ci boutique yi. jërëjëf Fatou man li ma li ma gëm li ma gëm mooy fi mu toll nii il faut ñu am euh, benn police du commerce. boo xam ne si ne dañ koy jël féetale ko ci ministre ministère euh, du commerce. Mm. mu ne fa police boo xam ne si ne moom mooy wàcc ci marché bi di xool les prix. di xool di wax ak commercant yi di régulariser ba nga xam si ni ñëpp dinañ wàccoo ak li nga xam si ni moom moo di les prix parce que mënuñu nekk ci réew moo xam ne commerçant bu ci ne moom mooy xëy yëkkati prix boutique boo dugg lu doon jar cent franc tey da ñëw ñu les cent cinquante cent cinquante cinquante pour cent la ci yokk. léegi loolu moom moo am kenn ku ci nekk yaay fixé sa prix selon lu mu la neexee amul fenn fu ñu koy jooy amul kenn kuñ ko mën a waxal tey ménage yëpp ñu ngi tas sëy yu baree bari mi ngi yëngatu depuis problème bi ñu constaté ko ci réew mi ak léegi ku doon joxee dépense 2000 francs 2500 tey boo amul dépense 3500 4000 francs foo jëm koo xam ne journée li muy gagné ouvrier yi nekk sur le terrain ñi nekk di nga xam dañuy taaba taaba di tëb di dal di daanu di jóg mënuñoo am journée tey ji seen i dépense dépassé na 7000 francs kooku mu jëm police du commerce il faut que mu am ci réew mi wax ak commerçant yi. Mhm. wax ak aussi ñi nga xam ne si ne ñoom ñooy euh, transformateurs yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci côté yëpp prix il faut que ñu fexe mu yem. su fekkee ne si ne ni prix yi nga xam ne si ne ni moom mooy suñu ay produits yi ñuy bayee fii dem nañ ba muy gën a cher produits yi importé y' a problème. ministre du commerce ni nga ko waxee léegi Assome Diatta il faut que tamit mu communiquer ñu xam lan moom moo xew dëgg-dëgg ba mhm. yi kenn mënut a xam fan la yokk bi jóge mburu rek la ñuy yokk ñu di ci def communiqué di leen sonal di ci wax. Ah, pendant ah, ah, trois mois di négocier. c'est vrai li fi yokk bari na euh, euh, lan nga ciy dolli Ibrahima. waaw li fi yokk bari ko. yàpp fi mu toll nii déjà bu dee yàpp nag kenn mënu ko laal parce que mi ngi jar. 4500 francs le kilogramme. bu dee bu xaar bi moom euh, am na sax yu jar litre bi 2000 lépp a yokk ci marché bi. soble si nag du coow. dawlin bi doon jar 5500 mu ngi jar léegi 9000. Mhm. bi doon jar 14000 mu ngi jar 24 000 ceeb bi yokkul suukar si li ma wax keroog dama xëy sama yaay may jox moom. mbokk yi dama xëy sax yow moom régime de Macky moom dara. <laughs> régime kan la. léegi maa ngi ma ñëw. waaw léegi maa pardon régime kan la. vous avez deux minutes ah. maa ngi ma ma ñëw. waaw sëñ Sadio bàyyi ko mu yegg. non damay laaj régime kan la. waaw maa ngi ma ma ñëw <laughs> s'il vous plaît. c'est sous Macky ah. sa moo xam nga loolu tamit moo tax ma ko ci mu ngi mel mu ngi mel ni nga naan ma kan mooy xalifa nga ma koy laaj ma ne la maa ngi nga ne ma non yaa ci keppaaru keppaaru keppaaru suñu mun taxaa loolu kay jarul laaj xam nga député opposition bi seen campagne ci élection législative yëpp bokkoon ni seen principal élément de langage bu ñu demee assemblée danañu wàññi dund gi ñoom ñoo ko waxoon de bu ñu demee assemblée. ah oui ñoom dañ doon wax loolu. ah bokk na seen élément de langage dund gi cher na Macky Sall moo yokk moo taxawul Sénégal yi moo tax dund gi nangam léegi nag comme que ñoom dem nañ ba fexe nañ ba xaw nañoo am doole am majorité boo leen boole seen première activité plénière séance plénière bu ñu demee assemblée. Mhm. nañ ñu dimbale ngir yàlla wuru suuli fi fexe ba dund gi wàññeeku bu fekkee dund gi ci assemblée lay wàññeeku. alors nañ fexe ba def ko foofu li ci des nag mooy. waaw le président Macky Sall. Mhm. mu ngi subventionné. dund gi daara alimentaire yi ku ne xam na ko mais nag. Mm, waaw dama ne subvention bu doyut. alors yokk na salaire yi. mais bu fekkee da nga yokk salaire te dund gi nga xam ne moom la ñuy dundee. ñoom mm-hmm. li ko andi xam nga lan la. Mm-hmm. TVA tant que ñu ngi dund ci ay taxes ci ay TVA Sénégal dina dëkk ci dund bu cher. waa Jaxaay mm-hmm. nee nañ à travers appel bi ñu lancé fii léegi seen tali boobu le conseil il y un des conseils spécial du ministre Samba Ndiobène Ka d'ailleurs Promoville ci seen tali boobu. Mhm. nee jokkoon nañu ak ñoom ba boole nañ ak ay services mhm. pour ñu jéem a nu ñuy def ba régler seen problème boobu. donc ñu ngi saluer Abdou Ka mhm. de passage moom loolu mooy njariñu télé bi. sëñ Saliou bi jaale euh, sunu collègue oh, euh, maam Seyni jóg mu ñàkk waajuram bu jigéen ñu ngi koy ñu ngi koy jaale bu baax a baax te oh, it di ko ñaanal euh, sunu borom yërëm sunu